رب العزه اما يرزقهم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جرجف بنيو توغون دي واخ تي مندو شيخ احمد الخديم رضي الله تعالى عنه وارضاه دوني في جوك ناخ موم لبوم يونس الله صلى الله عليه وسلم صلاه سته بمدح سته ne sama dund dama ko xaajale ñaari saison saison bi juróom benn weer la bële juróom benn weer bii damay julli ci yonent bi ci juróom benn weer yi yëpp yeneen juróom benn weer yi ma koy tàgg ba mu jeex moo tax mu ne aqsamtu billahi inni linnabi abadan xillan wa xibban wa ma abaahu yabaahu gëñ naa ci yàlla ne man yonentu rek moom moom bokkuma kenn moom moom sama xaritoo moom ak sama cofeel te lu mu it laa bañ lu ma bañ loolu la bañ alayhi salaatu wassalaam yàlla na ñu ko yàlla defal ci darajaay yonentu sallallahu alayhi kon nag eh, Chérif eh, yaa ngi doon weerante ndax waaw ndax li mel nii dinañ ko am mën na la li nga am tey kenn amu ko waaye yow sax amoo dara li nit ñi am tey kenn amu ko ndax yow ñëpp la moom tawargal la bu fekkee nag ki nga xam ni moom la tuddee guddi gi xam nga ki nga sopp ba mu ëpp mënoo waxtaan ci moom te defe naa ne wu ñu sóoboo ci waxtaan ci cheikhul islaami wa xawsul anaami sayid alxaaji ibrahim ñias loolu rek doy na topic te sax doy mat na ko nag xam nga koo xam ne def ne la innani qabla al baraya xubbuhu shuglul janaani